lii rek xew nag bu fekkee ne jëluñ suñu décision yàlla xam na ne projet bi fu ñu bëgg du ci mën a dem président Ousmane Sonko nag yéen ñëpp gis ngeen ko bi ñu jàppeek léegi amul jàmm amul salaam meeting bi nag changé wuñ ci wirgin bu subaa bu soobee yàlla dina ñëw ci département Mbacké programme bi changé programme bi ñu tëraloon programme bi ñu tëraloon dara luñ ci changé amul dara dara luñ ci changé amul bu subaa bu soobee yàlla dina ñëw dina nemmeeku militants yi ak sympathisants yi ndax fii mooy waxee yow nii patriote yi ñu ngi bàyyi ko fu ne jubal si Touba département Mbacké mm. am na ñoo xam ne biñ ñu daal lañ jóge egsi nañ am nañ jóge Casamance egsi nañ am nañ jóge Kaolack egsi nañ mm. kon ñun ñi nga xam ne ñun nañu dalal policiers yi mënuñoo jàmmaarloo ak ñun ñoo leen fi ëpp fuuf doonte suñuy fere lañ mais buñ fekkee ne dañoo ñàkk jom bay déglu ndigalu Antoine ñàkk jom di déglu ndigalu Macky Sall ñun lu mu leen jaral nañ ñu ko jaral ah, kon tey wax ji mënta bëri fi ñu toll nii tëlatul jamonoy wax fi mu toll nii tolloo ñu jamonoy wax jamonoy jëf ci lañ toll. may attiré attention patriote yëpp fii may waxee yow nii tolloo ñu jamonoy wax jamonoy jëf lañ toll. Macky Sall xamul loi xamul règlement kon maa ngi wax patriote yi ñu tëdd na kat dina nekk benn nga xam ne nekk benn rek ci lañ mën a amee liñ bëgg. waaw.